ñu ngi tàmbali suñu wax si turu borom bi subhanahu wa taala moom mi ñi may kàttan ak mën ak wér ba ñu teewaat fii ci suñu émission jotaay diine fii ci Prestige Thiès ñi ngi nuyu ñëpp di ko tàmbalee ci suñu yaay Adja Mame di ko ñaanal wér di ñaanal eh, képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission jotaay diine fii ci Prestige Thiès di nuyu suñu technicien bi ñu jàkkaar lool ak bépp liggéeykat boo xam ne yaa ngi fii ci kër gi di Prestige Thiès euh, ñi ngi ñëwaat tey ci suñu émission boobu ginnaaw bu ñu ñaanalee suñu way daw lii yàlla yërëm leen ñaanal aussi suñuy malade yàlla saafara leen ñaanal aussi suñuy mbokk yi ca prison yàlla teggi leen tiis googu ñu ngi indi thème boo xamante ni euh, ñu ngi koy wax julli tey julli lañu indi ndax julli dafa nekk thème boo xamante ni ci weer bi lañ ko wàccee woon la ko yonent bi sallallahu alayhi indi woon jële ko ci yàlla subhanahu wa taala mu nekk acte boo xamante ni avant sax yonent bi sallallahu alayhi di ñëw avant sax islaam di wàcc julli dafa amoon ku nekk ak nanka daan defe képp xeet boo xamante ni mës nga ñëw ci àddina bépp nit boo xamante ni mës nga ñëw ci àddina dañoo gëmoon ñoom ni dañu dañu doon am lu ñuy jaamu moo xam ñu jël benn euh, gënn wala benn kuur teg ko di ko jaamu animiste doon nañ ko def ñii jël jant bi di ko jaamu ñii jël weer wi di ko jaamu ku nekk am nga loo xamante ni gëmoon nga ko di ko sujootal wala di ko yaa xam nooy jullee ci moom bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi ñëw na nag muy islaam julli dafa am beneen dimension boo xam ne fa lay egg ndax dootul nekkati jaamu rek xool ni lii moo ma neex dama koy jaam waaye day nekk santaane neex la rek nga ne man damaa bëgg a julli rek lii laa gëm lii laay sujootal kii moom dama ko fonk su ma amee soxla moom laay ñaan kon dama koy julli waaye day nekk loo xamante ni romb na foofu day la lu jóge ci borom subhanahu wa taala mu sant la ko muy force ci yow mu nekk loo xamante ni danga ko war a def mu nekk nag jaamu boo xamante ni ci ponk islam yi moom mooy euh, ginnaaw boo seedee ni amul benn buur bu dul yàlla seede ni yonent bi sallallahu alayhi ndawal yàlla la da ngay taxawal julli bu fekkee ne jullit nga da ngay taxawal julli kon mooy deuxième ponk ci ponk islam yi maanaam pilier yi taxawal islam ba islam dëgër ba egg fu mu egg julli boobu mooy deuxième bi nekk nag loo xamante ni yàlla subhanahu wa taala ba muy wax ak yonent yàlla Moussa dafa ni ko mu julli ngir fàttaliku ko fax bu dul faxbudullah waqimi salaat li zikri na nga jaamu yàlla na nga julli ngir fàttaliku ma kon da day tax nga fàttaliku borom bi subhanahu wa julli ji fi la yaa ngi koy respecté rek sa xel toujours mi ngi dem ci borom bi subhanahu wa ndax diggante julli ak moroomam nga julli toog eh, ay waxtu xamni julli be mi ngi ñëwaat sa xel dina dem ci borom bi subhanahu wa taala bu ku fonk julli nga kon toujours da lay delloo sa borom subhanahu wa taala day tax nga ko sa borom subhanahu wa taala loolu bokk na ci importance julli bokk na ak ci importance li tax julli nekk lo xamanteni lu am importance la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ni kese keroog yowmal khiyam julli lañu ñëk njëkk moy li ñu ñëk hisab ci doomu adama bi ci julit bi su fekke seet nañ ko julli ba bax normal jarul ñuy sét yenen yi parce que su julli baxé rek yenen yi ci dess yépp baxna na nak di waxu yalla subhanahu wa taala yalla ndax yalla mo nit ñi aqim salat fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar taxawal leen julli ndax julli ray tere def lu ñaaw day tere def lu bon kon fi lek yaangi samonté ak sey julli di def namu waré di ko defé ci waxtu wañ la ko santé di laab na nga wara labé kon dina tax jikko yu bon yi dina génn ci yow doo sañati def benn lu bon ndax yàlla dina ko dindi ci yow bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yu ndaw yi yu sew sewaan yi yàlla dina la ko jégal parce que yu mag yi dinga ko éviter moo tax julli nekk loo xamante ni lu am solo la ba tey ci njëriñu julli ci importance bi nga xamante ni am na ko borom bi subhanahu wa daf ñuy wax ni xat aflaxal muminuun allazina hum fi salaatihim xaashiuun buñ demee ci suratul mumin deuxième ay yàlla subhanahu wa taala di ñu wax ni texe na ñi nga xamante ni gëm nañu waaye mu sepp ci jullikat yi ñi nga xamante dañoo gëm waaye nag nekk ñoo xamante ni seen julli dañ ko fonk dañuy ragal ci seen julli nekk ñoo xamante ni seen julli dañ koy joxe ni mu war a nekk ñu ragal julli ko julli boo xamante ni bu sell la yàlla subhanahu wa taala mu ne ñooñu texe nañ te texe mooy li ñuy wër ñun ñëpp kon yàlla ñu yàlla def ñu fonk suñu julli di julli ni nga xamante ni moom la ware ba tey ci importance julli relation bi nga xamante ni moo am ci diggante borom bi subhanahu wa taala ak nit ki muy mel imaan bi di ngëm gi taqwa bi ragal bi ñuy ragal yàlla ixlaas bi muy euh, sellal bi ak euh, ibaadaat bi mooy muy jaamu ji nga xamante ni moom la ñuy jaamu yàlla yooyu yëpp julli mooy li nga xamante ni moo koy defar ba mu gën a sell su say julli normale rek li nga war a sedd yëpp di nga ko sedd nanga nga xamante di nga li nga war a taxawee yëpp ci sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala di nga ko taxawee ba mu normal sedd bi ngay sedd dëgg lay doon ci yow di ngay sellal say jëf aussi say jaamu yàlla yi ngay jaamu yàlla di nga koy sellal moo tax julli gi nekk lu am importance loo xamante ni lu ñu war a taxawee ni mu war ni innal insana xuliqa halu'a iza massahu charru jazua wa iza massahu lxayru manua إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لول من سورة معارج آية 19 أك 23 باب 23 يالا سبحانه وتعالى دي ني واخني دوم آدمي دي دانيو نيك كوي خير ني خير تي ووتوم علال فولا فيك ني كير كير دي ووت علال ياندالو ني فنانات ني غونت وني فولا فيك دا ني ووتوم علال رك ني ووت علال رك خير تي لول تي ووتوم علال nee na ba pare bu ñu fekkee dañoo ñàkk dañu jàmbat rek ah dëkk bi de tar na dëkk bi dafa nàngam dëkk bi dafa lii moom kañ léegi moom jàmbat jàmbat jàmbat jàmbat nee bu boo jàmbatee nag kër kër yi ba yàlla wërsëgal la tuuti nee na da ciy ngoy ba mu dëgër nekk koo xamante ni ku ci ngoy nga ba yegg ci nay sax da nga ciy ngoy ba egg ci nay doo bëgg dërëm waddal waddal dërëm da nga ciy jàpp ba mu dëgër yàlla subhanahu wa nag nee na ñi ñi nga xamante ni loolu rek mooy seen eh, yitte ñoom nu ñuy wute alal rek ak di jàmbat ak eh, foo leen fekk naan dëkk bi dafa lii wala dafa lee ba pare di kër kër yi rek ngir wut alal tañu sax nu sax jaamu yàlla ndax wut alal yàlla subhanahu wa taala nee na am nañu mucc ci lool mooy ñan mooy jullikat yi illal musalliin nee na jullikat yi mucc nañu ci lool ñoom ñu doylu la doon ñoom ñu yemale li seen i bëgg-bëgg la ñuy doon ñoom dinañ jaamu yàlla boole kaak lu ñu am dinañ bu sàkku gaa mais duñ ci kër-kër yi ba nga xamante ni foo leen fekk ci loolu la ñuy nekk mooy doon seen dund nee jullikat yi ñoom noonu la ñuy mel mucc nañu ci ci ci coono googu ñenn ñi di am ci wutum alal nee na jullikat yi nekk nañu ñu ci mucc ñi nga xamante ni seen julli dañ ko fonk di ko defee ni nga xamante ni moom lañ leen euh, moom lañ leen ko waxee kon loolu moo tax julli tamit bokk na ci li tax julli nekk lu am importance ba tey subhanahu wa taala di ñu wax ba tey ñi nga xamante ni dugal nañ ne safara yaa ngi ci yàlla musal bokk na ci laaj yi ñu leen laaj buñ leen laajee maasa lakkakum fii saxar bokk na ci li ñuy wax eh, nekk ñu woon jullikat lam na ko minal mustalin xaalu lam na ko minal mustalin ñun de nekk woon ci jullikat yi bokk woon ci ñi daan julli nee na bu ñu duggee safara ba ñu leen laaj naa leen lan moo leen dugal fii bokk na ci li ñuy répondre ñun daaw ñu julli moo tax ñu dugg fii kon te julli nek na lo xamanteni ni tamit itamit lu lay musal ci dugum safara la lolé mi ngi ci solu mu dasir ay 42 ak 43 bokk na ci ngëneelu julli japp gi ngay japp di wajale avant ngay julli di lap yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuko misale ni eh, ku amone sa dex ci sa buntu kër wala sa déeg wala ndox buy ci sa buntu kër chaque jour nga dugg ci 5 fois sangu ci basset génn ndax dina am tilim tilim sa yaram ñu ne ko déedéet sa yaram boo yaram boobu kañ day set wécc mu ne julli nag noonu lay setalee nit ki ci ay bàkkaar noonu lay laabalee nit ki ci ay bàkkaar kon loolu tamit eh, eh, nekk na loo xamante ni ngëneel bu am importance la jàpp gi ngay jàpp da lay setal te jàpp ji ngay jàpp tamit ay leer lay doon yombal xiyaam bu lëndemee ba nga xamante ni kenn gis jaar di eh, dox di doo xam foo ban côté nga jëm fi fi sa jàpp yemoon yëpp ay lumière lay doon fi ndox mi doon yàpp laar yëpp ay lumière lay doon di la leeral ba nga xam fi nga jëm jàpp ju sell moo tax ñuy taamu bu dee da ngay raxas nga xaw a dépassé tuuti fi mu fi mu yem bu dee dojar gi nga romb ko tuuti bu dee ci suuf nga romb tuuti ba nga xamante ni leer gi dina gën a yokk kon loolu tamit nekk na euh, important ci bokk na ci importance yi nga xamante ni julli am na ko setal la ci ay bàkkaar setal aussi sa xol day laabal sa xol laab googu tamit dafa nekk loo xamante ni lu am importance la ci doomu aadama ndax bu ci amulee sax julli du sell yow mën nga ñëw sangu ba set sol sa yére yu set julli te fekk julli ga baaxul parce que laabuloo laab gi nañ ko ci nañ ciy bàyyi xel mooy jàpp ji mooy sangu farata bi nga xamante ni bare nañ ñoo xamante ni jéemuñu ko jàng jéemuñu ko mën waaye soo ko defulee am na yoo xamante ni lu mel ni jaxasoo góor ak jigéen yu mel ni eh, jigéen su gisee mbaax yu mel ni yeneen ak yeneen da war a jàpp sangu da nga war a sangu set ba mu set sangu sangu boobu nag am na ñoo xamante ni farataaluñ ko defuñu ci seen jéemuñu ko jàng ñu ko xam donc boo ko defulee te ci jamono ji nga ko war a def ba nga julli julli googu demu fenn boo waree jàpp sa njàpp toj na jàppuloo ba nga julli julli googu demul fenn kon nañ ci bàyyi xel tamit soo waree laabal aussi yére ndax du du yére yaram bi rek kay laab mais yére bi dafa war a laab fi ngay jullee dafa war a laab aussi donc yére yi boo ko laabalulee fóot ko ba mu set rek tooyaloo ko tooyalu sunna fekk mu amoon sobe momi tamit boko solé julli amulo julli motax toyel bi tamit nanti ci bàyyi xel surtout jigen ñi ñom war lañu xam ni ñuy tooy la tooyalu sobe tooyalu sobe boo koy def lo xam dafa am sobe do ñëw comme ñun ni ñi foté nga xam da ngay ñëw duggal yëre yu wex yi dal di génne weñ tek fële jël yenen yi si topp ci même ndox bi duggal weñ tek fa tant ndox bi salté gul gisoo ci salte do ko changer bu fekké am na yëre bu ci am sobe yak na yëre yëpp sobel na yëre yëpp donc dangay jël ndox mi nga xamante ni moom nga mën a tëmbal yi yére mu leer na ne yére yi tëmb nañ ci nga dugal leen trampe leen ba ñu tooy nga weñ génne tuur ndox moomu lenkalipaan bi tànkaat beneen dugalaat yeneen yoo xam ne ñoo ci xaj donc noonu la ñuy tooyale yére yoo xam ne dafa am sobe parce que soo jullee te yére yi am na sobe mën nga ko gis mu set ñu fóot ko gobe paase ba mu taal li fekk julliwul parce que amoon na sobe soo xamante ni nekkoon na ci te bàyyi nga ko ci kon loolu tamit foog ñu xam ko ndax bu ñu gisee jamono jii ni mu yàqoo jamono jii ni mu jaxasoo jamono jii ni mu baree ay tolof tolof te nit ñaa ngi julli te ñu wax ci kaw ni yàlla subhanahu wa nee na julli day tere def lu ñaaw def lu bon nga gis nit ñi di góorgóorlu di julli da ngay gis sax liggéey kaay heure julli jot ñëpp arrêté julli nga gis marché ba heure julli jot nga gis nit ñi arrêté julli te terewu ñaawteef yaa ngi am rayante yaa ngi am viol yaa ngi am defante lu bon nga am jëwante mi nga am satiante mi nga am lepp mi nga am lutax nañ xolaat suñu julli bok na ci ñak lab bok na ci aussi baña samonté ak ni nga xamanteni mom nga wara solo ndax léeg-léeg nga gis nak jigen jo xamanteni day nekk ci liggéey liggéeyukaayam marché bi la wala euh, école ba la wala fu mu ci doon julli jot mu daadi di jàpp day julli euh, euh, ñew taxaw yere ba mu sol soit gatt na wala transparente na wala bok loxo yi guddul fii la yem wala boog la mu muuroo oyof na ndax col yi léegi bare na ci yu oyof la mu muuroo oyof na ba yaa ngi gis la ca biir wala la mu sol oyof transparent ba ngay gis la ca biir su ko defee boo jullee ba pare julli ba demul fenn kon nañ xam ni tamit booy julli sa awra lépp da nga koy nëbb bu dee góor la jumbax la ba jeune bu dee jigéen la romb na foofu jigéen léppam awra la ba mu des kanamam ak loxoom yi loolu lañ sallallahu alayhi wa sallam jàngal tënk loxoom yi ak kanamam mooy li nga xamante ni war na feeñ mën na feeñ bu dee dee julli li ci des yëpp lu ci feeñ julli nga des na kon loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel moo tax ñoo ngi julli euh, heure yëpp ñu ci bari ñu ngi julli heure yëpp te julli gi yóbbu ñu fenn di julli di saaga di julli di jaxase ay nit di rambaaje di julli di jëw di julli di sàcc di julli di wax lu dul dëgg di julli di di di ray nit di julli di def leneen ak leneen ak leneen leneen kon xoolaatal julli gi ndax yàlla du waxantu te yàlla moo ne julli dafay tere def lu ñaaw dafay tere def lu bon kon loolu ngëneel la ci julli beneen ngëneel bokk na ci ngëneelu julli yi importance bi julli am li ñu waxoon ci suñu waxtaan bi passé ni yàlla subhanahu wa taala dafa yóbbu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba juróom-ñaareeli asamaan mu jox ko fa 50 julli ba mu ko joxee cinquante julli mu wàcc ba ci yonent bi eh, yàlla Ibrahim ci juróom-ñaari asamaan wax ko ko mu ne ko delluwaatal sa borom subhaanahu wa taala wàññi sa xeetkat mënuñu lool. ba mu demee muy wàññi di wàññi ba muy wàññi ko ba mu des cinq julli cinq julli yooyu mu ne ko sa xeet mënuñu delluwaatal mu wàññi ko yaa yonent bi salaa salaam ne rus naa delluwaat nag ci sama borom subhaanahu wa taala ndax dellu naa delluwaat delluwaat mënuma delluwaat di ko ñaan bàyyi ma yóbbu cinq yi. te lak yonent bi eh, yàlla Ibrahima waxoon loolu moo fi nekk parce que am na ñoo xamante ni ba léegi tamit ñi ngi bañ di julli ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi julli yooyu mu xamal ñu ni comme que ku def benn jëf yàlla subhanahu wa taala da koy multiplier par 10 ci lu baax ku def benn jëf bu baax yàlla multiplier par 10 kon 5 julli yooyu soo ko defee benn bu ci nekk ca na mu ware sàmmonteeg col ga sàmmonteeg eh, place ba sàmmonteeg waxtu wa def ko ni mu normale nee na subhanahu wa taala dinañ la ko defal cinquante julli yéen njëkkoon jox parce que benn bu dee da koy multiplier par dix. kon moo tax loolu tamit ci ngëneelu julli la bokk yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel war a góor góor góorgóorlu ci sàmmonteeg julli heure yi aussi bare nañ ñu koy négliger ndax julli dafa am waxtu inna salaata kaana mu nii alal mu'minina kitaaban mawquuta yàlla subhanahu wa taala moo ko wax julli ay heure la nekkul na yow damay toog def li may def yépp ba nga xamante ni sama desitu waxtu doyewu ma ko dara ma jox ko julli yàlla waxuñu loolu yant bi salaasam eh, jàngaluñu loolu doo julli doo def sa li ngay def yëpp ba nga xam ne léegi amatoo loo def yaa moom sa bopp nga soog a jël sa temps julli da nga koy julli ca waxtu wañ la ko joxee lu dul koo xamante ni am nga ngànt boo xamante ni lii question de vie ou de mort la wala koo xam ne mi ngi doon opéré wala koo xam ne mi ngi nekk ci benn malade wala yu mel noonu eh, yo wala ju jege loolu nga xam ne lii mënoo ko bàyyi alaa kulli xaal boo ko bàyyee mën na indi dégâts bu kii Eh, bu bu bu eh, eh, doy waar foofu la nga dul julli mais leneen lu mu mënti doon danga koy teg bu heure julli jotee jox yàlla subhanahu wa li mu moom yàlla moom moom heure julli yi bu jotee rek arrêté li ngay def jàpp ba mu sell jox sa bopp sa borom subhanahu wa julli dékk sa loxo ñaanal ko mu fajala say aaju kon julli dañ koy jox àqam waaye saa yu la neexee julli wala boog booy julli nekk mel ni mel ni yow fardo la bu tege woon sa kaw mel ni yàqamte am na ñoo xamante ni noonu la ñuy jullee bu julli bi yenn saay waxtu bi sax du ñëw wala waxtu bi eh, du nga day mel lu yenu ci ci sa kaw loo xam da nga naan na yenneeku gaaw ay man kay naa julli génn ci benn yoon xaaral ma julli gaaw ci ba nga xam ne doo ko tey sax defee ni nga ko war a defee waaye da koy këpp-këpp cofum ginaar gaawantu pare ci eh, débarrassé wu ci benn yoon julli da koy def ak xol bu laab xol bu teey xol bu sell jox ko temps bi nga xamante ni moom nga ko war a jox kon loolu mooy tax julli di ñu teree def lu ñaaw mooy tax aussi mu ñu teree def lu bon ba tey bokk na ci ngeneen julli dina tax a tàmm euh, respecté heure bu dee julli bu ne dañ ko jox waxtoom ni fii la yem fii la commencé fii la yem muxtaar bi fii la yem daruri yem bi fii la yem nga jox ko heure am ni mu waree dina tax nga tàmm xam ni man heure dama koy respecté en tant que jullit ndax bokk na ci mandargay naafeq li sallallahu alayhi wa sallam wax bu joxantee rendez-vous faussé ko yow julli dina tax ngay respecté ay rendez-vous xam ni heure bii su jotee lii la heure bee su jotee lee la lii rendez-vous bi ma joxe duma ko faussé donc loolu il faut ñu xam ko xam ni ñun ay jullit lañu xam ni julli mooy tàqale aussi jullit ak ki dul jullit ba tey suñu sa salaas la moo ñu ko wax jullit julli moo koy tàqale ak ki dul jullit bu fekkee ne yow julli nga te ne julliwu ma mënuñu la classé ci jullit parce que gisuñu la ngay julli